rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkaal yi ginnaaw bu nu sante yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyoo nuyoo lislaam nuyoo jullit ak mbokkam ñu ngi leen di nuyu nuyu nit ak mbokki dëkkandoom di jël jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke ibni cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal sunu boroom yàlla na gëna a guddal aw fanam ba lépp lu mu naan fas yéene ko liggéeyal cheikh Ahmadou Bamba mu àggale ko ci ak kattanam te ñu ànd ko ak moom di ko ñaanal sëriñ cheikh Jëmb Fall sunu borom tabaraka wa taala gën ko fee yàggal lool ba lépp lu mu naan fa yéene koy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom di jël nuyoo gu sell googu teg ko ci ki nga xamante ni moom mooy kilifa ak jitaay gi ki nga xam ni moom moo fi teewal ki nga xam ne moom la ñu duppee bés bi ànd ak ak ñi mu àndal mooy sëriñ Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Wadoud mu ñaan ko mu tagal na ko ci mbooleem ñi nekk ci biir jataay bi yëpp ak waa dëkk bi yëpp kenn ku ne ñu ngi lay jox sa siyaar la fekk fi nga toog jox la sunu ñaari loxo jox la sa wàccuwaay bi la yàlla jox di la sant di la gërëm ci kàddu kuréel gi yëpp mooy waa dairatu xale sëriñ Serigne mbàkketu Mbacké Touba ñu ngi yeesalaat suñu mbégte ak suñu cant ci teewaayu ñëpp ñu ngi ñaan itam lépp luñ fi ñaan mooy bi ñu jàppee bés bi liñ ci jàng ci alquran ak ay xasaid ak ay tudd yàlla ak ay jéggalu ak ay salaatu ala nabi yépp maase nañ ko def ko addiyee cheikh abdul akram mbakke yal na sunu borom dollil nu ay leeram yal na nu taaf ci barkeem ak sëriñ Saalihu Mbàkke mi nga xam ne moom lanu ñu duppee sunu bopp kon ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di siyaara bu baax sëriñ bi sunu teewaay sa teewaay sunu xool sedd na ci guy waa dëkk bi ñépp ànd nañu bëgg ànd nañu sant ànd nu kontaan ànd gërëm ca teewaay bi ñu ngi lay ñaanal bu baax ci barki Cheikh Abdul Akram Mbakke yal na sunu borom gën a guddal seeni fan ak mboolem ñi fi teew ñëpp sant nan bu baax mooy comme niñ la ko waxee woon rek bés bi danoo bëgg donte mënewuñu ko ñu sàkk ko ndimbal muy lépp rekk faxe ba tege ci sunna te ñu jiital ci njàngum alquran bi yàlla sunu boroom kàttanal nu boole nu ak ay wëllëre daara waa xel xelkom waa kër sëñ seex Coro Mbàkke loolu lépp nag ndimbal loolu mu jaare ci ku jëwriñ sunu jëwriñ bu tudd Ibrahima Jaxate Ibrahima Jaxate ci dong yi Sëriñ Saaliyu la moom moo nu baaxee loolu ba mu jokk leen ñu ak waa xelkom ak waa kër sëñ Cheikh Coro Mbakke waa njaarim di waa kër sëñ ma sëriñ Mouhamad Dem waa kër sëriñ Malick Dem ñoom ñu wàccil ñu ay kaamili kaamil nga xam ne mënuñu leen ñàkk tudd waaye ak sunu mbokki jàng daara jànge alquraan yi ku mel ni sëriñ Mbay Ñang mooy nekk ci kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi ñoom Baye Mokhtar mi nga xamante ni itam ñoo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké nekk ci biir dëkk bi kenn ku ne am na ay kaamil yoo warlul ak ñépp ba nga xam ne limu kaamil yi toll na ci ñaari téeméeri kaamil ak fanweer ak ñaar ñi nga xamante ni itam ñoom ñoo doon warlu limu xasaayit yi ki nga xamante ne moo yore liggéey boobu daanaka daa dem di waññ lim ba nga xam ne mënatu koo waññ ba xam ñaata la waaye loolu lépp ñu ngi jël tuyaaba ga jaayante ko ak Cheikh Abdoul Akram Mbacké sunu borom yokk ay leeram taaf na ci barkeem saxal jàmm ci dëkk bi diine ji gën fee yokk ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha nuy sant ñëpp ñu fi nekk ñépp nga xam ne daayira bi daayira la boo xam ne daayira bu am cosaan la ci yoonu murit fii ci Pambal daayira la goo xam ne jékkuwut sosu ci ayu Serigne Saliou mbakke ba muy toog ci biir ay gi jëmm ju ñu tudd Serigne Mortalla Diallo nekk taalibe ci sëriñ Dame Saliou Fall moom moom moo fi nekkoon sëriñ bi yebaloon ko boole woon ko ak ñi liggéey ci wàllu ndox mi mu doon ci liggéey fii ci euh, forage bi di ci dig boole ci liggéey la Sëriñ Tuubaa waaye li sabab ak ñëwam mooy tax ma ne daayira bi sosoon maanaam lu am cëslaay la ci yoon wi ndax ñëwam fii ci moom niñ ma ko lettalee mooy moo doomi sëñ Dam Sali di sëriñ Omar Fall ñoo nekkoon ci kër gi sëriñ maam Baye Talla moom jàng tërbiyu na ba am ngërëmam sëriñ bi ñaanal ko sëriñ Omar itam nekk na ci kër gi jàng na ba amee diplôme waaye ñu toog sëriñ bi bëgg leen wutal aw liggéey ki nga xamante ne moo yoroon wàll ndox mi ca njaareem jamono jooju dama fàtte tur wi moom bi mu ñëwee mu ne ko ah liggéey bi de fi ñu toll daanaka xaw naa xat waaye de duma mën a jël ñaari ñi waaye dama ci jël kenn seetal kenn rek nga jox ma ko ma jël ko ci sëñ daam daldi di joxoñ sëriñ Mortala Diallo kon nga xam ne li tax mu joxoñ sëñ Mortala Diallo am na liggéey boo xam ne moom war na ko fee defi bi mu ñëwee fekkoon na fi daayira su suñu wajur muy daayira sopp xaadim waaye loolu lépp waa sopp xaadim maanaam seenug dem bi ñu daan dem ci seen daayira boobu di dajale bi wax tudd yàlla doom yi nga xamante ne ñoom lañ daat boot ci seen ginnaaw ñooñu ñoo sosu ca jamonoy Serigne Saliou bi Serigne Saliou wax ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba defoon ca mag ña donte yelloo moo ko sama barkeeloo ko ca kon am na ci silaay kuréel googu nag moom moo nekk nii bi mu ñëwee saxal na ci sikkar si saxal na ci tudd yàlla yàlla dimbali nu ba nga xam ne ah ñu ngi sàkku fu mën di toll di sax ci lépp li Serigne Touba bëgg lépp loo xam ne Serigne Touba bañ na ko ñuy sàkku di ci jéem a bàyyi ba keroog ñuy mën a matal lépp lépp loo xam ne Serigne Touba bëgg na ko itam ñuy sàkku di ko matal kon loolu nekk na cosaan bi nga xamante ne moom mooy sosu daayira bi ci atub 2003 atum 2003 la daayira bi sosu waaye eh, sëriñ bi kàddu yi pour mu bañ a gudd ndax waxtu yi lii mooy cosaanu daayira bi waaye nag cant gi noonu la doon doxe yàlla dogal na ba maase na nekk waa dëkk bi yépp amu du du mag du ndaw du góor du jigéen ñépp bokk maase ci liggéey bi yàlla daa dogal rekk maanaam organisation bi ñu yore liggéey bi mooy daayira bi di mooy waa daayiratu xale yi Serigne Saliou Mbacké kon loolu moo nekkoon kàddu gi mooy kaddu cant ak kaddu ngërëm waaye ñuy sant ñëpp ñi teew ñëpp mooy kilifay diine ak kilifay aadi ñoom ñëpp kenn ku ne mu ñu tudd sa tur ak ñàkk tudd sa tur donte tudd nañ ko sunu làmmiñ sunu xole tudd nañ ko sant nañ ñëpp kon ñu ngi wàccee kaddu gi foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi ginaaw bi ñuy santee borom bi tabaraka wa taala ci yonenteem bu tedd bi sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa nuy jéem a delloo njukkal sunu jàmbaar ju tedd ji Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu feyal nu ko di nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yépp di wax ne ki yëkkati kàddu gi di Muhammadul Moustapha Mbacke Abdul Wadud kenn ci njabootu Cheikh Ahmadul la di ay di taalibeem di kenn ci njabootu Ahmadul Muxtaar Cheikh Afia waaye di kenn ci njabootu Sëriñ Moustapha mi nga xam ne tey jii jëmmam lan fi teewe te mu siiwe ci tur yi jamono joxa léegi muy sëriñ Moustapha Abdul Akram ci turam lay yëkkatee kàddu di ko jaarale ci sama làmbiñ di wax na ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp ginnaaw mbokk mi doon wax léegi ci turu daayira bi jaar na ci seeni tur ñu baal ma rekk ginnaaw bu ma tuddee ñi ma àndal bi ma sëriñ bi yebalee may ñëw ma laaf ci ñi feggoo ak man ñi ci des may ma ñu yóbbaale leen ci tudd gi leen mbokk mi tuddoon muy Cheikh Mahamadul Bachir bi may ñëw sëriñ Moustapha fonk gu mu fonk yaar benn bi mooy jëmmi bis bi ak yi mu làmboo yépp ñaareel bi mooy ki ñu tudde bis bi fonk gu nga ko fonk xataayu jamono ak xam ngeen ko xam ci jonjoo gi mu dëkk di jonjook doomu aadama yi ginnaaw bi mu nekkee ci li ko war xataay boobu xam ngeen ko xamin woo xam ne ñi fegg woon ak moom démb bér na leen ne la fa fekk ak la fa fekk buñ ko nemmeeku waatoon tey lu ëpp loola dafay nekk looloo tax nag mu leen di woon ne fonk na bis bi loolu moo tax bi may ñëw mu ne naa ñëw jéem fee teewe jëmmam waaye bu may ñëw naa ànd ak njabootam bi nga xam ne mooy ki njëkk a feeñ ci ay njabootam di sëriñ Aafiya Mbàkke bi ñu tuddee maamam sëriñ Aafiya Ahmadul Muxtaar waaye sëriñ Aafiya sëriñ bi su yemoon ci loolu mu doy waaye mu toftal ci yeneen njabootam kenn ci ñi mu tudde ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy woowe Cheikh Bamba waaye mu jëlaat keneen ci njabootam nga xam ne moom la tudde waayu juram di boroom bis bi di Cheikh Abdul Akram waaye ñu ànd ba tey ak njaboot Cheikhul Xadim bi feggoog ñun te toog nii ci sama diggante ak Cheikh Afia waaye bi nu ñëwee itam nu fekk fi suñu bopp ndax suñu bopp suñ ko waxee sëñ Maxtaar Fay mii nga xam ne moo war a wéel waxtaan wi incha allah ay nit suñu mënoon a doon kenn man ak moom duñu doon ñaar kenn la ñuy doon ndax kóllëre gu yaatu dafa dox suñu diggante waaye ustaas Ngounda Faye mi mu àndal tam noonu la ñu demee kon su ma tuddee ñooñu tudd sëriñ naar mi ma fekk fi ma feggool daanaka ñëw ci sëriñ aadama moom suñu am di xat yi nga xam ne tuddoon nañ ko léegi ak soxna jee mi mu feggool maaleykum salaam daanaka ñooñu daañu jot a doy ci nuyoo bi mu mel ni bi ñuy yëkkati kàddu ci la sous-préfet agsi ñu di ko jox nuyoo sëriñ bi di ko jox wàccuwaayam mu ni njëkkanteeg waxtu wi nag ginnaaw am ngeen conférencier ku war a waxtaan ci thème buñ ko tànnal waaye ñu laaf ci itam ki ñu tuddee tur wi ngir mu xam la ci moom aslëf te bokk gi genn dëkkandoo bi di benn xamin wi sorewul loolu dama koy bàyyi ci loxob sëriñ Maxtaar Fay su agsee du ma ne dana leen xamal kan mooy sëriñ Abdou Karam waaye dana leen xamal lenn ci sëriñ Abdou Karam kon ñun li ñu yëkkati sëñ Moustapha ànd ak xataayam boobu yépp ànd ak galfan gi mu galfan ci jamono ànd ak nekk nga mu nekk ci lam war a nekk lépp ndax defe naa ña fa ñëwoon bi ñu duggee ci kër gi daara lañu gis ñuy jàng alxuraan ak xam-xam bi ñu génnee ci pénc mi jàkk lañu gis ñu fay julli julli juróom bu ñu sànnee seeni bët ci li ñuy tudde àll doonte àll amut ay tool lañu gis gis matérielu mbéy bu yaatu boo xam ne romb na liggéeyu fas romb liggéeyu mbaam romb liggéeyu nag ba ñëw ci tracteurs yi nga xam ne liggéey bu kawe lañuy liggéey kon mu mel ni ki yàlla may mu taxaw taxawaay taxawe taxawaay bu tol noonu kenn ku nekk xam na ne la mu war a nekk ca la nekk waaye mu mel ni ki nga xam ne moom la ñu tudde bis bi dafa doon yu bari yaatu ci sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo ko fi wuutu ki ñu tudde bés bi mooy sëriñ Abdul Akram sëriñ Abdul Akram nag defe naa bu sëñ Maxtaar ñëwee tur wi képp doy na xamle mooy kan waaye sëriñ Abdul Akram moomee itam mooy jëmm ji nga xam ne ci téere bi ñu leen jox bërki démb su ngeen ko nemmi koo yëg ne waajuram wu góor mook sëriñ Touba ñoo bokk xaadim Momar Anta sëli waajuram wu jigéen duma ci xóotal jombul sëñ Maxtaar dana ci sori waaye ma nga càllale woo ci sëriñ kokki diggante boobu nag doy na sëkk waaye li muy càllale woo ci ñaari càllali wurus yu mat yooyu yëpp itam du mën a doyloo wut loola waaye gunge na ñaan gi jëf sëriñ Abdul Akaram gunge na ñaan gi jëf waaye jur ya xëy nañ gontu na góorgóorlu na boroom xam-xam bu mag la woon ngir ñu mën a roye ci moom ëslëf ndaw yi ak mag ñi nga xam ne ñu ngi dund ci taalube daara ja mu doon jànge nga xam ne bokk na ci daaram yu mujj ci sëriñ Mohamed dem ca njaareem wax nañu ne su mosaa am lu muy laaj taalube yi di leen nemmeeku fu seen njàng toll moom lay mujj a waxal ndax xam ne bu agsee ci moom laaj bi mat menn moom moo ko ci tontu. ku teel a man alquran la ku bàyyee woon boppam itam borom bi tabaraka wa taala la taalibab Cheikh Ahmadul piir bu leer naññ taalibab sëñ Bàmba la woon ginnaaw bi mu nekkee njabootam doy na sëkk ci taalibab Cheikh Ahmadu Bàmba Xadim Rasul la woon doy na sëkk ci ne ginnaaw bi mu nekkee doomi sëriñ Touba taalubeem la woon xam nañu ne ñi sëriñ bi dëkkoo woon ci zaahir bi sëriñ bi ñibbee àjjana dañoo gën a féeteeg yàlla mel ni ñu nekk ci biiri bàmmeel ñu tudde leen waa barzak ñoo ñële sëriñ Abdul Akaram bokk na ci ñu njëkk a xalaat nu taalibe yi taxawe ci ñoom ñu teggi seenu coono ba bi sëriñ Abdul Ahad toogee dafa waxtaan ak moom ne ko dundu barsaq muy njabooti sëriñ bi yi mu fi bàyyi jigéen yi wala suñ bëggee leeral muy soxna yi mu fi bàyyi dama bëgg nga bàyyi man Abdul Akaram ma féetewoo ko <coughs> aafe gee nga xam ne fa la sëriñ nekk te boo fa demee tey lépp yokku mu sof fa sëñ Moustapha sof na la fa waajuram bàyyi woon waaye sos na loo xam ne ñépp xam na ne dëkk ba yokku na ci fànn yépp aafiya googee fa la sëriñ Abdul Akaram doon beye téeméeri barigo dugub at mu nekk di ko jox sëriñ Abdul Ahad mu di ko indi ci njabootu Serigne Touba yi nekkoon ci albuqaatul mubaaraka muy kër gu mag gii ci njaareem téeméeri bërigo mu nekk seenub dund loolee xam ngeen ne ku dul murit saadex mënewoo ko noonee rawatina ca jamono joo jële boroom xam-xam la duñ ci dellusi waaye maa ngi leen di wax na itam li tax mën ne leen ku bàyyi woon boppam yàlla la Serigne Abdul Akaram kenn ci njaboot nettali na ma ne nee na bi mu dooneem abdul akram bi mu nekkee abdul akram ba ni mu màggate dooleem di wàññeeku fàttilikuwul fu mu tàllale yàlla ay loxoom ne ko suñ boroom xëccal ma lii baa jëñal ma lii loolu nag defe naa dimension bu kawe la loola li ko waral mooy bàyyee boppam yàlla te xam ngeen ne jamono yi ci ginnaaw rekk Cheikh Mahamadul Muntaxa ginnaaw bi ñu ko joxee waayam tey ñaan yàlla mu yàggal dëgëral saxal barkel ba li mu bëgg a def lépp mu def ko fan yee ci ginnaaw rek am na waxtaanam boo xam ne bi mu koy def boole na ca waxtaan ba ne Serigne Touba noon na bàyyee sa bopp yàlla kenn du ko def ba rëcc ko bi mu daaneele daal ne man mii di wax ak yéen nag doy naa ci firnde loolu suñ ci duggee ci la fanaan. ci la ñuy lab waaye doy na sëkk ci nabaxtuku maan ala kaddin bada li xabla an araari dan mu abada sëriñ bi nee na li mu daj bi tawféex yépp di laata daje fi kanamam su ko mburu dajoon ca taal ba kenn du ko jariñoo waaye taxul mu ne yàlla defal ma nii baa defal nii dafa bàyyee boppam yàlla rek ba yàlla defal ko ndam kon ginnaaw waxtu yi dafa xaw xocc te timis ci jege damay wax ne sëriñ Abdul Akaram foofu mooy fi mu tegoon tànkam boroom xam-xam la woon jaamukatu yàlla la woon taalibu sëñ Bàmba la woon ginnaaw bi mu nekkee doomam liggéeykat piir la woon itam ku doon dimbalante ak jaam yi la sëriñ Moustapha mee ko nekkal nag dama leen a wax ne sof na sos ak sof dañoo dend te duñ benn sëñ Moustapha damaa wax ne sof na sof na mooy fi kër sëñ Abdou Abdoul Akaram nekkoon magi taalibe yi ku fa dem tey danga nga ne kër gaa ngi nii waaye boo xoolaat rek say bët te dégg wolof da nga yëg ne kër gaa ngi nii mooy kër ga kon dara wàññeeku fa te lépp yokku na waaye dafa sofaat sof sof nga mooy bu ngeen demee aafiya jàkkaarloog jumaa ja jublu penku fa fare ndeyjoor fa tedd gi fare woon Cheikh Abdul Akram yokkaat na ci lu ëpp loola ci wetu càmmooñ gi ligne dëkk bi wuutal dëkk ba aw tur def jumaa ju mag ca kanamam kilomètres yu néew ca kanamam itam mu defaat fa tool yu yaatu tudde ko Daaru Salaam moom nag daanaka li bokki séréer yi wax rek buñ jaaxlee danañu jëfandikoo baatu dex wala yi danañ jëfandikoo baatub géej loolu lépp ci ku ñu jaaxale rek lañ koy wax booy lim ay qualité nit ba xamatu foo jëm danga naa diw géej la sëñ Moustapha nag buñ ko doon jéem a natt ci nattuwaayu ndaw yi ñu amee dañu jàpp rek ne géej la kenn ku nekk xam na ne ci diggam tinu nit tinul nit yàlla may ko ci ndam macha allah bu fekkoon ne saa bu ko defee laaj ci dara wala su ko defee bu sëqatee ñépp wuy si ko dana am jafe-jafe fay ñi koy nuyu intervention bu ne ci àdduna dikkal na ko dikkale na ko nu ne waa kër Serigne Touba ñi ñëpp kenn ku ne ci ñoom sant nga ko ko ay yoon yu bari ba àgg ci lool ba ci Seex Saalax mii ñu mujj tudd muy Serigne Saliou mii te terewul nag. mu wëlbatikuwaat di doom di taalube kon sëriñ bi nee mi ngi leen di sant sëñ bi nee mi ngi leen di gërëm sëñ bi nee mi ngi leen di dolloo njukkal sëñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal tuyaaba ak yiw bu yaatu nu mu gën a mate nu mu gën a sëmbërtale mi ngi koy def mi ngi bokk ak yéen bis bi di wax ne su ko biroon ne nanguloon ko ngantam moo fiy juutu moo fiy mucc ak li ay ay ay yitteem di bari lépp sant na leen gërëm na leen bëgg na ci tudde gi ngeen ko tudde ku mat a tudde ndax doy loolu doy wolof nee na dafa jafe te sëriñ Abdul Akaram lii lu tuuti la ci la sëriñ bi doon wax ne wala si yudraku bil akwa bi tayaar géej mu ne su ko tàng ci ay kook foofu la toll kon sëriñ bi sant leen gërëm na leen tur itam benn bayit bi rek laay wax ngir ngeen xam ne nit ñu baax ñëpp fonk nañ ko sëriñ tubaa nee na alhamdulillahi lazi laa yaamadu fii nafsihi sawasmihi muhammadu nee na tudde gi ñu ko tuddee muhammad rek sallallahu taala alayhi wa sallam moom ahmadul xadim loolu mooy li ko neex ci boppam te baaxuk sayidna mohamed moo tax mu wax loolu kon bu ngeen yëkkatee tur tudde ko kenn ci njabootul sëriñ tuubaa gungee ko koo xam ne bu doon ci waxi jamono dañuy wax ne promotionnaire am la muy Cheikh Salihu Mbacké macha allah def ngeen li ngeen war a def waaye yàlla mi mën a yàlla na leen fay kon wet googu foofu laa ci yem di ñaan Cheikh Cheikh euh, Makhtar Faye moom it bu agsee suñu borom bàyyee koo xam-xamam gën a leeral dënnam ba yim nu war a jot li yëpp ak lu manque ci liñ doon wax mu motti li ñu ko di nuyu itam sunu jigéen bi ñu feggool te mu mel ni nee ñu sëñ bi noon na yoon wi amul ñetti keef yi muy géer gor góor sëñ Tuubaa nee na jigéen bu defee ci yoon wi lu góoram defut ñu defal ko lu ñu defalut góoram waaye ngeen baal ma ci baat bi muy bëgg a wax géwél bu defee lu géeram defut ñu defal ko lu ñu defalut géeram ngeen baal ma te ba tey ci baat bi may bëgg a jëfandikoo kañ doon tudde jaam ba muy am ci jamono su defee lu lu lu lu lu gorom defut ñu defal ko luñ defalul gorom mu mel dafa am Seex Ahmadu Bamba bu fi nekk euh, dama mënta ñàkk a tudd baatub jigéen kom jigéen la muy soxna Awa Mbàkke bintu alxaaji Muhammadul Baara mbakke moom Cheikh Muhammadul Fadal moom it ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko tàbbal ci yaa faadilan faddalahu alxalaaqu yaa man bihi faaraxanil imlaaxu kon ñi ngi wàcce suñu kàddu foofu di ñaan daje ak tawféex ak ndimbal di leen jéggulu nag di wax ne bu sëriñ Moustapha ñëwoon dana gën a jot waaye dana gën a mat dana gën a jaar yoon jataay bi dana gën a taaru yàlla nag moo ñu nattoo mu yebal suñ jëmmu ju xeebu ji boole ñu ak njaboot yi nga xam ne ñu tedd lañ ñu baax lañ ñu gungéent ñun baax si fi kon bu jubee dogalu borom ñu xam moo ko waral mu gudd mu gàtt daal sant nañu gërëm nañu noo ngi ñaan borom te tabaaraka wa taala fee leen boppam di wàcce kàddu ci Sëriñ Tuubaa noonu kenn deful kenn dara waaye kenn defalul kenn dara itam lu waaye def boppam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu